zéro. ci bis bu ñu jagleel télécommunication ak société de l'information ci àdduna moom jiitu ARTP Abdou Karim la doon lancé projet bi ñu dëppee roaming national. bépp sénégalais boo xam ne am nga téléphone que soit opérateur bi nga xam ne moom nga jël sa abonnement. boo nekkee ci zone boo xam ne dafa am couverture quel que soit l'opérateur bi assuré couverture bi di nga mën a jokkoo. projet nag dañ ko teg ngir yombal woote beeg wuyu bi ak wàllum internet surtout ñi nekk ci réewu taax yi. dañu bëgg a fexe ba écart bi am diggante dëkku taax yi ak dëkk yi nekk au niveau mënuñu nangu. ñu am ay population Sénégal yoo xam ne amaguñu ba léegi la technologie de g L'autorité de régulation des télécommunications et des postes ARTP la mu bëgg ci bile projet mooy dooleel ak saafara rëkk-rëkk yu nekk ci wàllum communication ci réew mi yépp à partir d'aujourd'hui équipe yépp dinañu liggéey la main dans la main sur le plan des autres aspects pour que ñu mën réussir li nga xam ne moom mooy le free roaming ou le roaming national sur l'étendue du territoire sénégalais. projet bi nag ñu ko doon lancé tey ci kanamu mbooleem njiitu opérateur yu nekk ci réew mi moom nag day yombal woote beek wuyu bi réseau bu wóor ak bépp opérateur boo mën di jëfandikoo roaming national ab réseau bu gën ci askan wi fépp waay mën na nekk.